sunugal24.net l'information à sa juste valeur c'est ici même sunugal24.net ahonsu billahi mina seytaani rajiimi bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu mboolem koy jàkkaarloo sama jëmm ji man la Serigne Saliou Ndiourou Mbaye di taalibe Serigne Saliou Mbacké waaw tey jii xam naa ni comme waxtaan yi ni nga ko noonu ñu ko war a tënkee rek mooy ci ni nga xam si ni mooy niñ fas yéene doxee ci màggal gi dañ fas tey mooy niñ doxee ci màggal yi jàll yëpp rek nu ko raw sax lañ fas yéene doxee ci kàttanu yàlla mooy foo xam daal daan nañ fa dem danañ fa dem ci kàttanu yàlla fu ñu daan yóbbu uh, jëf danañ ko fa yóbbu fu ñu daan ñam danañ ko fa yóbbu fu ñu daan feeñale suñu yéene ci niñ fas yéene yéene liggéey la sëriñ bi ci bis bu tedd bi ndax dane woon bu ñu egg ci weeru safar bu ñu demee ba egg ci fukki fan ak juróom-ñett koo xam ne sama mbég sa mbég la nag ma ci sant la yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala li ko tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem ñu fas yéene nag ñun ci carton yàlla euh, lim yooyu mu wax mooy ni mu ko tàmbalee ci keef rek yemale ko ci keef mooy ganaar ak gëléem ñu fas yéene tàmbal ci lépp rek ci carton yàlla euh, ngir fas yéene ko ci sant la yàlla ak di ci sàkku mbégam yàlla nañ ci dajeeg nag mbégum sëriñ bi noonu rek la lañ ci fas yéene doxe waaw leneen la ca des mooy euh, nga wax sama diggante ak njabootu sëriñ bi diggante beeg ànd gi mi ngi tënku ci dëgg-dëgg yi ni ñu bokk luñ bëgg di ànd rek ndaxte ñun jullit yi lañu war mooy bokk maa si xam ne dañoo gëm yàlla gëm yonant bi maase wu bokk ay pas-pas mooy fas yéene sax ci li nga xam ne mooy li neex yàlla ak li neex yonant bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ne laataa ñuy dooni murit mu bëgg nga xam dañoo doonu jullit ba pare doog a doon murit ndax murit mënoo ko doon te doonu jullit kon jullit gee njëkk ci ñun yàlla def na tawfeex ju toll ni euh, jëmmi jii nga xam si ni ñu ngi koy tudd du ñu tudd muy Serigne Saliou Mbacke ñu di ci sant bu baax a baax suñu wayjur ak suñu wayjuru góor ak suñu wayjuru jigéen ndax dañoo dimbali ba def ci ñun loo xam si ni àdduna sëpp teg nañ seen bët di ko seere mooy yàlla dimbilee na ma man suñu kër ñëpp Serigne Saliou Mbacké da leen sama wajur tudde ci bi mu jaayanteeg Serigne Saliou Mbacké am na fukki doom ak ñeent yoo xam ne ñoom ñëpp Serigne Saliou lañ tudd fukk lañ naran doon sax juróom-ñaar noonu la la demee loolu jural ak cant na gu ma koy sant bu baax a baax a baax moom Serigne Saliou leneen la ca des mooy li nga wax ci Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée a ci moom ne a mucc ci saytaane mu ne ko dangay dem ba fa saytaane tuxoo dëkk fa mu ne ko mbàkki fa saytaane tuxoo mu ne ko saytaane gi tuxoo ci ndigal moom ndigal loole moo ko yóbbee mucc ndigal loolu lan la ko yóbbee mucc mooy yàlla defal na ko tawfeex ju toll sëriñ Tuubaa moo ko digal mu kan mooy sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Mamadou Bassir mii fi toog toogaayu sëriñ Tuubaa ndigal yooyu mu tënku nag moo tax kàddu ko gi sëriñ Abdoulaye waxoon ne ku bëgg mucc ci saytaan da ngay dem fa saytaan tuxoo la ko yàlla dimbilee te gëm naa ni jëf ji rëy ji way juróom bu doon jëf muy sëriñ Béthio jëf ji li muy rëy rëy moom ci la joggi te nit ki saa yoo joggee ci mbir la nga joggi man nga caa jaare fitti ba jëf-jëf ju kawe la nga joggi ndaxte wolof dañu koy bañ mu suul la bu ko tungoom te moom gëm naa ne fi mu ne am na cëslaay am na wéeruwaay bu dëgër muy sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru te kooku kum tungoom ku nekk àdduna sépp danañ la teg bët ba tax na màggal gi moom ñëpp xam ne dana ko màggalee màggal yoo xam si ni kii man wolof nag day faral di wax ne làmbi lislaam ubbi na waaye làmbi seytaane moom mës sa ba ma waral fu nit yàlla yi sampe seenu ndigal sampe làmb joo xam ne fa seenu wuñ caa bàkk mukk lu dul bàkkub yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala indi ca wet ga ab sa ab lu ni mel noonu moom yàgg naa am ci yàgg naa am waaye gëm naa ni mbirum Sëriñ tubaa moom li ci li ci ne li ma ci daan faral di wax rek moom da nga cay nekk di ca defar ba defaroo ci waaye da nga nekk di ca jima yàq ba far kon yàlla nañu yàlla loolu lay defal tawféex daal ba suñuy doxee nag lépp rek méngoog bëggug sëriñ bi loolu moom mooy mooy li nga xam ne moom la ñuy ñaanta di ko ñëpp may faral di waxee ni adduna dafa doy waar ndaxte nit léeg nga xëy ci luy yëkkati nit ki ak luy tax ay mbiram baax ak luy tax mu mën a mucc ak luy tax lépp lu mu naal mën a egg te jëmm yàlla rek tax xëy moomee nga xëy di def loolee moom mu gont ci di def lu lay indi li gàllankoor ak lu lay indi li ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen te nit ñi léegi dafa am baat mooy faral di wax ci bukki xam nga nit ñi dañoo dem a dem ba bëgg a jël jikkoy mala yi bukki daa mas a ñëw fekk rab yëpp taxaw mun leen la leen gën di seen xonq de aw yàpp la rab yëpp daw mu ne waa man sama wax ji mbaat day bëgg doon dëgg loolu mooy ku fen ba nit ñi diglu la ci saw fen jàpp ne fen wi dëgg la ñu daw di ko jëfe nga fekk si leen ca bëgg dëggal fen we nag loolay li xew léegi dangay gis nit koo xam day taxaw wax loo xam leer na ko ni moom lii dara du ci dëgg dara amu ci waaye mu bëgg bu ko nit ñi gëmee nag mu fekk leen ca bëgg samp loolee nag jàpp ni lii kat dëgg la te wolof damay faral di wax ne wolof nee na dëkku mag bu mujjee ci dof ci tas lay mujj ay xam nga tax muy mujj ci tas ab dof loo ko jiitu la day jékki-jékki bëgg aaki moom lépp mooy dëkku mag moom bu mujjee ci dof ci tas lay mujj day jékki-jékki ni dëkk ba maa leen moom ku ne nangu sa bopp dëkk ba tas yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ dégg ak topp sax ci li nga xam mooy li méngoo bëggu Serigne Touba ànd booloo liggéeyal Serigne Touba loolu rek mooy mooy di am solo mooy di fi nekk liggéeyal Sëriñ Tuubaa nag mooy liggéeyal yàlla mooy liggéeyal yonente bi sallallahu taala alayhi wa moom dane lépp loo xam si ni gis ngeen ko muy di neex yàlla di li neex yonente mooy di ma neex man Ahmad kon safaan ba mooy la muy bañ yàlla nañ ci yàlla musal sëriñ Mouhamadul Basir Mbacke mu mu mii nga xam ne mooy kaddu yoonu murid damaa fekke sama yat bëriwul waaye loolu yàggul fi la ma fekk sëriñ Béthio di def ay cheikh moom la sëriñ Cheikh Sidi jox ndigal mu wax ak sëriñ Béthio ne ko loolu yi ngay def mu ñu di ko waxu ak na nga ko teg ci suuf sëriñ Béthio ni loolu kat sëriñ bee ma jox ndigal Cheikh Mamadou Bassir nee na ma xalifa bi nee ma naa tegaat loolu ñuy wax ak Cheikh naa teg lépp ci suuf laaj ko ni ko Mbàkke ndax sama gos gi da cee bokk mu ne ko déedéet sëriñ Saliou ko def kon kooke xam nga ni ci ndigal rek lay dox mu ne damaa bëgg nag ñu fàtte ko kookee nag moom la sëriñ Mountakha yabalaat mu ñëwaat toog ci kanam mbooloo mi nga xam ne dañoo bootu ci ginnaaw suñu Béthio mu ni leen na ngeen ànd jiital sëriñ Saliou Gueye Tapée mi yéen ñëpp ànd ak moom daal ni biir njabootu Cheikh bi nag nga xam ne mooy doomi boppam yu góor yi doomu jigéen ñi ma waxaale ko ne ndax kenn ñi mu ca jëloon jëbbal doomam yu góor la wax ku ci xool ku la doy ci njabootam gi da nga bëgg caa jëbbal jokk ca moom ndax lu Sëriñ Tuubaa koo séddale waaye wolof daal daan na faral di wax ne ku ñu doon moom doo doon loolu waxi wolof la nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi jégalu ci kàddu yi tey ñaan suñu borom loolu ñu defal tawfeex lu ci jub ndimbalu yàlla lu ci dëng suñu di la waaye jubluñ ci lenn lu dul rek soññ suñu bopp ak di soññ mbokk taalibe yi ba ku ci nekk am ko ràññale ak xam na nga war a doxe ak la nga xam ne mooy sa cër nga nekk ca ndaxte kat euh, bari pexe moom nekk ci njubu ko gën. adduna nag am na lu ci sëriñ la Ahad Mbacké waxoon dana ma ne ku lay jaay ab juddu xaar ko ci suñu maam Adama ak ndax bu limee bokkam ba mu jeex fa lay teer ni ku lay jaay alal ju bari xaar ko loo amul doy la kon nañ fexe tënku ci loolu rek ñun ñëpp loo amul doy la ku lay jaay juddu nga xaar ko suñu maam Adama ak Awa ndax ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu soxla ko yi ñuy wax ak yëpp daanaka lépp dara taxawu ci li ëpp solo mooy fexeel ba ku lay jaay biddu fexeel ba man ko ne ko doo ma gën a gëm yàlla doo ko dàq jàmm ku lay jaay alal ji bari xaar ko ci loo am mu doy la ndax la nga nit ki kii xëy reeram misu yow nga reerab son biir moom du nettali lu ci nekk nag ab xiif rek lay faj ni nga fexe ba yàlla dimbali la soomi boobee fajal la sa xiif aman ngor gu toll ni sant ci yàlla rek te delloo ko njukkal te xam ne am nañu ko bëgg te mënuñu ko ndax am nañu bari alal lool te saa yu ñu bëggee eh, jàllale ñoom seen biir mu tëleen kon li ma ta sant yàlla daa bari benn baykat bi daal dina dana ajjana ak topp ak topp ci jëm sawara ak mooy ci jëm daal ñaari barab bi nag boo ci jëm dalal di sóobu am ngërëm loolu moom euh, neex naa firi daal na ngeen fexe ba tënku ci li nga xam mooy dëgg-dëgg ci euh, li nga xam mooy li neex yàlla ak li neex yàlla maa ngi koy digal sax bopp te di ko digal mboolem koo xam ne doyloo nga sama jëmm ji te jëmm yàlla rek tax sama jëm ji ne day lu xeebu du lu lot ba moo tax daanaka boo ci xool yeneen sax man naa bana mën naa day waar ndax man motuma bay mottali kenn waaye daal xam gi nga xam ne xam nañ ko ak laabir gi ñu bëgg laabir doomu aadama yi rek moom yóbbu ñuy wax yal nañ yàlla dafa tawfeex asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nit ci goudron ak ni ba mu ko mel tàngoor bi ni lépp mel nga ñëw xool jëf ji fas yéene koo jënd tàmbal ko Sénégal ci màggalu Touba yi lii ku dul Serigne Saliou sañu barke Serigne Saliou Mbacké ku dul Serigne Touba sañu di ko sant bu baax a baax a baax fii may waxee gi nag yi ngeen seen lu muy bari bari bari loogu jëkk bi la fi mu toll nii des na yeneen camion yoo xam te ñi ngi ñëw tey rek wit euh, camion wàccee nañu bokkul ak ñun loo bi ñu fi fekkoon waaw ñi ngi santaat sëriñ bi bu baax a baax di ñaan ak ndolleem moom sëriñ Sall lii nag ak tàmbaleem la waneegul dara Sunugal 24 point